mbokk internet limametti point com dal leen ak jàmm ñi ñëw ak yéen ci seen naafila ak juróom ci weeru koor ñu war ci am ñaari rakka rakka bu ci nekk nga benn yoon teg ci ixlaas fukki yoon ak ñaar sëriñ bi nee ku ko def incha allah mel na ni ko julli junniy ràkka ci maqaamatul ibrahima julli ci jàkkay màkk junniy ràkka saraxe julli dërëm leel junniy miskin te bu ñaanee dees na ko nangu mel na ni ku jox ndogu xeetu yonente bi salallahu alayhi wa sallam yëpp te bu faatoo ñu boole ko ci ñi dee ci jihaad te dees na ko musal ci métitu dee te bàmmeelam dees na ko defal mu bokk aja naya àjjana ya te buy dekki dana ànd ak leer yu aja ni jant bi te dana tabbi àjjana te deesu ko xisaab te sa mbooleem yenent ba lay bokk bu elege njàngale mi nag ñu ngi ko jëlee ci teere Sëñ Suhaybu moom Sëñ Tuuba limametti point com mu ngi di ñaanal kooru thank you Thank you.